te xam ne xelum doomu aadama am na fu muy jariñe waaye am na fu muy lore am na fu muy jariñe rek wa qaalu law kunna nasma'u aw naaqilu maa kunna fi ashaabi sa'iir ña tàbbi sawara sax wax nañ loolu kon foofu xel am fa njëriñ waaye xel nag ni ko Serigne Saliou masa leerale bu jugee fu ne mën na faa dem ci sansa mën naa dem ca mën naa jugee fii léegi xel mi dem ba Amérique wala xel mi dem ba Italie wala France wala mu dem ci garab bi wala ci àll bi waaye tànk moom bu jigee ci yoon rek la mën a jaar kon loolu mat naa bàyyi xel bu baax ñoo xam ne euh, yàlla suñu borom ci boppam dañuy digle nga bañ a xalaat ci jëmm ji te ba xalaat ci ay jëfam yi nga xam ne sàkk na ko moo tax nga mën ko gëm waaye xalaat ci jëmm yàlla ji dañuy wax ne bokkaare day firi moo tax am na foo ko Sëriñ Tuubaa leer la ci mu waaye bu xulus العجز في الادراك ادراك والفكر في ذات الله اشراك خلاص جيم يا اليوم بوكان لي جوخ نخ نعم. دوم ادم ساسو توبي ام خيرم سي نغيلم تي دوكو يوب كون لي ام سولو موي يالا سوني بروم بو ديغ لي دارا بول واخ ني يالا لوتاخ مو ديغ لي نخ يو حكم برا سوني بروم ديغ لي كو خمو واي نك نديغي لا سي نجار تي لا نجار دي توب نخ بو ديلو سي nee na usjudu li aadama fasajudu illaa iblis ñi ne kaanam na jin ak beneen aaya bi mu wax ne euh, illaa iblis sa aba kon iblis moo gàntu la taxam mu gàntu dafa wax ne xalaqta ni min naarin wa xalaqta wa xalaqtahu min tiin danga ma bind ci leer bind leen ci ci ban kon jëf na ko am xel moo tax suñu borom sippi ko te ci ñëppoon dara jëla ko sëriñ Touba nag daana wax ne ku la mënta digal nga jëf mun laa tere nga bàyyi mënta dox sa digg bu safan kon digal nag saa su ko sëriñ bi yëkkatee du fa mu baaxoo jaar rek la jaar na ko kilifa kilifa mi daan defe du ci seet lu neex kenn ndax euh, doomu aadama yi di waxul leen neex amul njëriñ sëriñ Touba dafa waxoon ne fexe leen ba am ngërëmul yàlla suñ borom ndax nee moom rek am solo ndax nee na ngërëmu nit ñi kenn mënu ko am nee na boo ci sonnoon ba am koy du la amal njëriñ mhm. kon nag li am solo mooy nga am ngërëmul keneen bi mhm. kon sëriñ bi itam foofu la ne lépp lu muy wax lu ne lu ci seet lu neex kenn waaye lu jëriñ nit ñi rek la moo tax mu di ko def ndax amu ci lenn loo xam ne dana ko jëriñ wala mu wàññi kon ki ñi diggal itam war naa xam li tax sëriñ bi di ko digal kon sëriñ bi nañu xam ne dëkk bi sëriñ Touba da koo sanc ba mu koy sanc itam dafa waxoon ne yaara tax ma sanc dëkk bi daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi mu ne bi ma ñëwee ci dëkk bi itam yaar rek laa fekk saawo yi nag ak windew ko fi dara kon dëkk bi nañ xam ne Serigne moo daa fekk fu dara mu sanc ñaan suñ borom Touba mel nii suñ borom nangu ko kon foofu ku fa dëkk ku ne war nga xam ne ci li nga nekk lu doon muy dëkk boo xam ne itam Serigne Touba dafay ñaan suñu borom lépp moo tax xéewal yi yomb fi waaye ci biir xéewal yooyu itam nañ fexe ba xéewal yi bu mu jur ak ak ak ak ak ndax waxoon na ne ba ma nekkee ci géej ga da doon sonn lool ci ñaanal taalibe yi suñu borom defal leen xéewal àdduna ak àllaaxira nee na ba ma ci sonne di di ko ñaan suñu borom nangu ko nee na ba xéewal yi ëpp nee na mu mujj gis taalibe yi ak mboota tàbbi leen ñuy jël alal bi ak yi ci des yëpp di ko jëfandikoo nu ñu ko war di jëfandikoo nee ma am ci loolu métti loolu ma ñaanal suñ borom suñ borom ne ko te te te fekk suñ borom da ko xamal ne ko suñ bi nee na ma laaj ko suñ borom ne ko lu ko waral mënu ko yaa bindoon ci géej gi wax ne yow suñ borom yàlla nga ma defal xéewal sama taalibe yi nee na mu ko nag ñaan ga nga ñaanoon nag euh, ñaan ga nga ñaanoon mu indi xéewali ba ak ndoor tab leen mhm. mu ne ko nag kon euh, mu soppiloo ko nuun nga ak laam mhm. moo tax ñu ko soppee nag sëriñ bi nee na moo tax suñ doon defal leen xéewal yoo xam du àndatee kon suñ tubaab fàggul nañu loolu mhm. mu waxit ne suñ boroom da ko wax ne ko looy fàggul taalibe yi de na ci na ci mbirum commerce bokk yaxantu ndax nee na mooy xéewalu mujj jamono mu wax ne ijal li ahli zari wa tijara i'anatan aw yaxta aw yaxtawa bushara kon lépp lu ci jàppale rek nañ xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko fàggu fàggu gi ne kon la nga xam ne mooy la ko ciy delloo njukkal